رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله نبي الله waaw xam nga di sant yàlla d'abord dañu sant yàlla bu ñu mayee ñu teewaat ren ji di ñaan mu may ñu ñu teewee ay déwén di gërëm mag yu baax yi fi jaaroon ba nga xam ne ñoom ñoo sosoon lii ba ñëw tey ñu ñu ñëw di ko wéyal ci waxtaan wax na génne fàttali na li yàlla wax jullit ñi yéen ay xeet askan wi gën ci kaw suuf bu fekkente ne nag ñu ñooy askan wi gën ci kaw suuf ñun war nañ ko wone jëfe ko dañ koy jëfe ci def la nga xam ne beneen askan bu nekk ci suuf dana am lum ñu nawee ak wegee ñu ko ci suñuy joxalin eh, ci suñuy koom ci suñuy nu ñu yoree suñu réew ak nu ñu jàppalee sax yeneen xeet yi won leen ñu nit am na lu ñu mëne waaye jàpp naa ne tey jii nii dellu nañu ginnaaw dellu ginnaaw ndóol nañu ndóol goo xam ne euh, ñàkk nañu xam-xam it ñàkk xam-xam boo xam ne dañuy mel ni ñun ñoo gën a dellu ginnaaw kon donc nañu motal suñu suñu ngëm-ngëm ci loolu yàlla wax ba nga xam ne dinañu taxaw taxawaay goo xam ne ëllëg ku ñu gis ci kaw suuf naweeñu ko bokk na ci nag fexe ba nga xam ne bu ñuy def comme yi ñuy dëgmal muy élection yi te ñu ci daan jaar Afrique yëpp naw ñu ñu jox leen ci ay leçon ñu def ba nga xam ne bi yoon it Afrique yëpp dinañ ñu naw mu jaar fi mu ñu wa fi mu bëri woon di jaar donte ni léeg-léeg mu doon am ay tolof-tolof waaye saa yi amoon tolof-tolof dinañ daan jël ay matuwaay yoo xam ne tolof-tolof yooyu dina wàññeeku wala dinañ ko éviter. Euh, dégg nañu nag njiitu réew mi am temps yi lu mu wax ne après élection am na yu mu nam def yàlla rek moo xam. kan mooy fekkee élection yàlla rek mooy xam sax kan mooy dund ba ëllëg waaye bu fekkee ni am nga xalaat bu baax te yéene ko réew mi bul xaal ëllëg wala gannaaw ëllëg jëfe ko léegi mu naan day jël ay mesures pour detant jàpp nañ bu fekkee ni lu gars yi di wax ne que pour pour fexe ba nga xam ne ñi fi bokkoon ñi fi ñi mu bëggoon ñu bañ a bokk ci élection yi moom rek moo taxoon na jël ay matuwaay yooyu muy jël léegi bu mu xaar ba après élection comme fii Tivaouane la ñu nekk bëgguñu ci àddulu fu sori waaye bu ñëwoon ci yeneen bërëb dinañ gën a fësal lu ñu wax parce que lu ñu wax jàpp nañu euh, lu tubaab di wax aveu la maanaam reconnaître que ni am na ay yu taxoon mu yi fi jaar yëpp jaar fi ba nga xam ne pour écarter ñenn ñi ak pour doxale nenn ni te loolu bokk na ci loo xam ne du du tax a jàmm gën a yaatu ci réew mi waaye ñu ngi ñaan di xel yëpp dellu si moom it matuwaay yu mu bëgg a jël yi mu jël ko dee maintenant. Rasulallah.